jéego yu mag soo gisee tey presse bi ni mu fi toll macha allah ñu ngi leen di gërëm di leen sant euh, c'est parce que xam ngeen li ñu def natt ngeen ko li ñu def mooy dañoo mobiliser ñi nga xam ne euh, croix rouge la ñu gëm li croix rouge li gëm ndax croix rouge def ne dimbale leen ma ma dimbale ñi gën a new doole te ndimbal yooyu ñuy def ñoom liggéey yooyu ñuy def séntuwuñ ci dara xam nga luñ ci séntu ñooñu ñuy dimbale jóg taxaw wér delluwaat ci seen liggéey ñooñu ñuy dimbale ñu wér am wér ak wérle xam nga loolu bu ko nit amee am jàmm am nga lépp donc loolu mooy liggéeyu Croix-Rouge Croix-Rouge boobu nag dafa am ay médecin waa kër docteur ay infirmier ay xale yoo xam ne seen xalaat ak seen jëf yëpp mooy dimbale askan wi ñu jóg di jàppale ci loolu euh, ci première vague bi ñetti junni ak ñaar téeméer ak ñett volontaire ñoom lañu waxoon ñu dem ci terrain ci ñeent fukki département yi ak juróom ñu def liggéey bu rafet bu ñëpp gis ci taxawu bi ci lépp ba ci ñi nga xam ne génn nañu àddina ah ñu dem ci suul bi ñu taxaw defar leen ba mu jekk jébbal leen seen borom donc Croix-Rouge li muy def bari na xëy na ci Covid bi nag gis nañu lu ñu def waaye gannaaw Covid bi am na yeneen lu ñuy def bu ñu ko mënee nag ñii ma dendal ñoo tax ndax dañu bokk ci mbootaay bu ñuy wax fédération internationale des sociétés de croix ci téeméeri réew ak juróom-ñeent fukk ak ñaar xam nga loolu mbooloo la te mbooloo mooy doole ñooñu nag ñun bu ñu jaaxlee ba nga xam ne amuñu ndimbal ci suñu biir réew ñoonu ñoo ñuy jàppale. li ñu def lépp nag ñoom ñoo ñu jàppale ba nu man ko ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax xam nga nag booy ndaw ba mu yàgg boo xeexatee da taxaw nopp ci foofu lañu toll tey nag bi Coca Cola ñëwee ànd ak fédération nañu ñu ngi leen di jàppale dañuy noyiwaat bu baax di xaar nag ba yeneen ndimbal yeneen ndimbal euh, séntu ko d'abord Sénégal séentu nañ ko ci état bi ndax état bi moo créé croix rouge donc état bi dafa war a dimbale war a jàppale croix rouge boole nañ ñu ci riposte bi def nañ ci lu ñu man waaye dañu bëgg mu jàpp ci nag ba nga xam ne bitim réew bu ñu ñëwee dañuy dolli rek du ñu sos ñun dañu bëgg sénégalais yi di sos ci ndimbal li donc loolu daal euh, yéen tamit war ngeen ñu ci loolu waa presse ndax soo xamee Croix-Rouge liggéeyam ngeen dem dama dem Kaolack gouverneur bi ne ma bi pandémie bi ñëwee ci leen ma affecté Kaolack waaye su Croix-Rouge amul woon Kaolack ma créé ko xam nga loolu am na lu ñu parce que tim état bi mënul lépp ministère de la santé amul assez de personnel personnel am doyul bu sukkandikuwul ci ñeneen yi du dem donc loolu bëgg nañu nit ñi xam ko nit ñi di jàppale Croix-Rouge pour ñu mën a dem mën a jëm kanam. ñun partenariat bi pour que Coca fondation Coca Cola euh, mën a ñëw euh, appuyer euh, effort yi ñuy def maanaam jéego yi ñuy def pour Covid bi. fii ci Sénégal nag comme ni ngeen ko gisee matériel bu bëri jënd nañ ko fi macha allah te matériel boobu mooy tax ñu Croix-Rouge sénégalaise mën dimbali askan bi ci liggéeyam ci mission bi mu am en tant que auxiliaire pouvoir public yi. Euh, mais Coca-Cola def na loolu aussi ci yeneen dëkk yi si sous-région bi au total am nañu plus de quinze pays yoo xamante ni dimbali lañ leen ci matériel pour ñu mën a def li ñu war a def si seen li comme mission euh, ñuy ci profiter nag vraiment pour remercier Fondation Coca-Cola mais aussi comme ni ko présidente euh, madame Bafou waxe ni mbooloo mooy doole. Coca Cola dugg na si mais yeneen croix rouge yi tamit dugg nañ ci ndimbal li loolu moo ñu tax tey ñu mën a am euh, euh, taxawaay bi ñu taxaw def li ñu def nii gis ngeen léegi réalisation yi présenté nañ ko ci vidéo yi ak photo yi donc mbooloo mooy doole te mbooloo boobu la ñuy continuer effort yooyu la ñuy continuer ensemble pour que mu mën a jëm kanam ndax deuxième vague bi mi ngi fi gis nañ ko te du ñu du ñu applaudir pour le moment mais on va toujours maintenir maanaam dañuy euh, garder kii ñu am rek maanaam dynamisme bi ñu amoon wolof mi nag moom day dafa xaw a setadi mais en tout cas ñu ngi ci wetu Croix-Rouge sénégalaise euh, ñun partenaires yi ñun fédération internationale croix pour mën ko dimbali mais ñuy ñaan aussi ñeneen yi ñu ñëw dimbali Croix-Rouge sénégalaise pour mu mën a def li mu war a def euh, à commencer par l'État et toute autre bonne volonté jërë